Eh, kër Sëñ Touba am na léegi ci biir réew bu Argentine ginnaaw bi nga xamee ni at yu bari mu nekkoon bëggug li nga xam ni moom moo di murit yi nekk ci biir Argentine tey nag daal fay ba mu mat nu daal di am ay jointure ak ñi nga xam ñoom ñoo leen jaay kër gi ba daal di kon jot nañu titre foncier bu Kër Sëriñ Touba fii ci Argentine capitale Buenos Aires. tey nag dañoo nekkoon ci finalisation bi muy joxe li desoon pour ñu jox ñu kayit yi ci Escribano fii ñu nekk nii mooy Escuela de los Escribano mooy école bi nga xam ne. notaire lañ koy wax ca Sénégal mooy ko bi nga xam ne kayit booy jënd kër ci jaar la ko de manière légale fii ngay ñëw yàlla def na kayit gi leer na jënd nañ kër gi ba pare euh, fay nañu signé nañu di ngeen ko gis ci ci image yi. waaw kon xam naa dañuy ñëw rek ak euh, li nga xamante ni moom mooy euh, terrain yi nga xamante ni moom lañ fàggu fii ngir Sëñ Tuubaa xam naa ni fii ñu taxaw ñi moom mooy borne bi nga xamante ni moom moo jiitu xam naa ni boo ko toppee nii maanaam day da ngay am lu toll ak 42 ba fële euh, boo ko toppee ba ci poto lampe bële ñuy seen foofu tamit deux mètres la kon xam naa ni boo jugee ci poto lampe bi nga ñëwaat ba fële moom mooy fi nga xamante ni beneen borne bi fa la kon xam naa ni li nga xamante ni moom lañ am ci longueur day doon 42 mètres li nga xamante ni moom lañ am ci largeur day doon 32 mètres kon 8 day doon 42 euh, mètres sur 32 mètres boo ko calculer day doon 1344 mètres carrés kon 1344 mètres carrés. moom mooy li nga xamante ni moom mooy surface su euh, li am fii ci li nga xamante ni mooy kër sëñ Tuubaa gi nga xamante ni moom lañ fàggu fii ci Merlo. ginnaaw bi ñu sante suñu borom julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant sëriñ bi ci tawfeex ji mu defal ba ñu eggale liggéey bi tey eh, ci escrivano bi ñoo ngi xamal mbokki jullit yëpp ak mbokki taaliba yi dina xamal ne mbiru kër sëñ bi li ngeen mbooloo mi ngeen mës a jox rek ci kër sëñ Tuubaa gi bis nekk tey defal nañ leen ko ci kër sëñ tu gi ba. jot nañ ci titre foncier bi bis ni ki tey fas yéene jublu ci liggéey bi di ci soñ ñëpp nag mboolem lu ñu rek def nañ ko ci mu doon kër goo xam ne kërug lislaam lay doon ñoo ngi sant mboolem taalib yi nekk ci réew mi yëpp di sant fédération bi nga xam ne taxaw na fi ci jëwri ñu fi teew yëpp ak jëwri ñu fi teewul ñi nekk Buenos Aires ak ñu nekk ci province yëpp suñu xol sedd na ci mboolem jëwri ñi jërë ngeen jëf kon ñu fas yéene rek xam ne ñëpp ne fas yéene bu soobee suñu borom balaa yàgg dara daañu wut architecte commencé jublu ci wàllu collecteur bi ak yeneen liggéey yi nga sos war nañ ko sos ndax liggéey Sëñ Tuubaa moom amul taxaw dañ ci nekk rek allah rabbi kon ñoo ngi yemal suñu kàddu foofu jërë ngeen jëf. Sëñ Bamba borom tukki bu sori bi ci sëriñ bu baawaan bi Sëñ Bamba. di sant yàlla bu baax nag bi ñu jotee ci titre foncier kër Sëñ Tuubaa gi fay nañ ko ba mu mat toll ci soixante quelque dollars. ba lépp mat na ba jot nañ ci titre foncier bi di ko sant yàlla di ko sant Serigne Touba mi nga xam ne moo ko def loolu nag ñoo ngi yëgal mboolem taalib yëpp nga xam dina xamal ne liggéey bi tàmbali na. bis ni nañ jàpp ne gannaaw jot nañ ci rek dañuy daal di jublu ci setal barab bi jublu ci wut architecte commencé liggéey fu fi bi nekk rek fu fi jullit nekk ndax Serigne Touba moom këram këram lislaam rek la ndax kër koo xam ne fas nañ yéene def fi jullikaay fas nañ yéene def ay jànguwaay. mooy kër sëñ Tuubaa moom kër lislaam rek la kon nag am nañ mbégte bu baax di sant ak sëriñ Tuubaa ci tawféex yi mënu defal ba mu sottee ci loxo di sant mboolem taalib yi ñu àndal yëpp waa administration bi xam naa ne liggéey boobu ñu wax ne wax nañ ko tamit wala ne fu fi taalib bi nekk ci réew mi jàppal ne 2000 pesos war na la ci kër sëñ Tuubaa gi bu ñu jógee assemblée générale ba képp koo xam ne daa nga doon xaar liggéey sëñ Tuubaa kër sëñ Tuubaa gi noo ngi lay xamal ne loo ci yéene woon moo xam 100000 pesos moo xam 50000 pesos nañu xam ne lu ci waay yéene woon te war ko ci def rek bu soobee suñu borom diir bu gàtt rek daañu fas yéene dajale jëf ji foofu taali bi nekk te sa jëf ak seegut jàpp ne 2000 pesos war na la ci loolu ñoo ngi koy soññu ñëpp bu nga xam ne bu ñu yóbbee ci assemblée bi rek bu ñu xëyee jublu ci liggéey bi kon ñu ngi jox sëñ Saliou Amsa ñu ngi ñaan suñu borom àggale leen liggéey bi ba fi ngeen ci yéene lépp ngeen def ko nu kawe njort te Cheikh Abdoul na ko nee na Serigne Touba mësta santaane lu jëm ëllëg da daa xëy bis ni ab ñu bind ko sabd ko soqi ko maas ko nga daa xëy bisit ñu damaa soxla kër ñu sàkket taxan ñëw taxawan taxanal mbaar ya te itam lépp lu muy woote boppam taxut hadiyatullahi almuhin saaxat li xayri yallaahin wal yawma billaahu yuhin man shaahu wa fii xadi li mu wax ni yàlla dana gindi ci man ku ko sob loolu képp a tax kon liggéeyub Sëñ Tuubaa bi nga xam ni taxawal ngeen ko ñu leen ciy ñaanal di leen ci sant di leen ci gërëm te itam di leen soññ ndax euh, ab murit moom du yoqi du xaddi fu saxaar sax fu saxaar rombe rek war na caa mën a jëf euh, mu yóbbaaleel ko te yoonu murit kenn mënu cee jariñ sëñ Saliou nee na kenn yoon wi kenn mënu cee jariñ nit te ñaqloo woo ko te allazina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillahi ka masali habatin ambatat saba sanabila fi kulli sumbulatin miatu habatin wallahu yudaa'ifu liman yasaa wallahu waasiun alim alal joo mën a jël dépassé ko ci yoonu yàlla perte nga ko ba mu des la nga def ca yàlla ndax mi ngi mel gub wu ne sax fukki pepp loolu dara gënu koo sakkan te bis boo demee ci bàmmeel da nga xam ne liggéeyal sëñ Tuubaa rek moo wóoroon kon yàlla na yàlla na leen yàlla defal tawféex ak ndam ak kartan ba ànd gii ngeen ànd te yàlla a tax ak liggéeyal sëñ Tuubaa tax yàlla na gën a jëm kanam wax dëgg yàlla suñu sedd na guyu ci yéen ndax ànd bi rafet na te sëñ Tuubaa nee na woon li li fi yëg Bala ma am li ma bëgg ci yeen faaw ngeen and motax seigne sëñ da wax ni yar bi ma han fi hisni kal asini was sam lañ ma yow yalla ma ngi lay ñaan murid yëpp nga nos leen ci genn buum ndax bu amé rek saytaane day échec wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ndax li ñu am tay, dafa kawe ci ñun lool ndax yaakaar naa at yu bëree bëri mo ngi ñu diko top ba yalla dogal man nañ ni tay lepp soti te ku ne xam nañ réew mi ñu fi ñew ñëpp dégg nañ ñu ni seigne touba keur ciowal keur seigne touba yag nañ ko dégg yalla mi nga xam nak dara tëwu bimu bi yombal nako ndax fédération bi bi mu amee ba ñëpp ànd nekk benn wax dëgg yàlla ci la lépp daal di jàppandee ndax comme eh, alxuraan ni mu ko waxee rek bu ñëpp àndee nekk benn rek lu ñu bëgg rek suñu borom daal di leen ko defal ba tax na wax dëgg yàlla bennoo bii ñu def nii ñoo ngi ñaan suñu borom mu gën a jëm kanam ndax fi mu dool nii damay wax ne na jàpp ni liggéey bi day doo ko tàmbali maanaam fi mu dool tey la tàmbali liggéey bi tàmbali ndax lépp lu fi nekkoon ci xaalis ak nu mën lépp dugal nañ ko ci kër gi fii nii moom point mort lañ taxaw dara nekku fi ay borka yi ñu topp 1000 pesos wala nangam waaye dara nekkutu fi léegi nag ñun ñoo ngi soññ képp koo xamante ni bii yaa ngi Argentine ci woote boobu nga xam ne juriñ wax na ko muy le deux bi incha allahu taala fu waaye nekk ci réew mi ñoo ngi la ciy woo te sas bi ci gën a ndaw 2000 pesos la jëm kaw ku am 1000 dollars andil ku am 500 pesos andil xeebut yéemut waaye mii deux nag mooy sas yi moom ñoo ngi ciy soññ ñëpp di soññ suñu bopp di soññ ñëpp di nga xam liggéey baa ngi doon ko tàmbali ndax dañoo fas yéene incha allahu taala buñ fa mënee màggale bala ñu àgg ci màggal buñ joxe architecte bi ak maanaam entreprise yi nga xam ñoo ko liggéey bala ñoo àgg ci loolu fexe xaalis bi teew nga xam bu leen ko joxee rek incha allah bu dee ñu mën fee màggal incha allahu taala ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp. Muhammadin barke borom Tuuba alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf Sëriñ Tuuba jërëjëf Sëriñ Tuuba waaw di sant rek bu wér Euh, sëriñ Saliou Mbacke moom sëriñ Amsa Mbacke moom sëriñ ab Abdoulahad Mbacke moom xaadimal Moustapha kon liggéey bi nga xam ne maam sëñ ñu ko boobu ba tey mi ngi ci ni comme ni ko Talla waxee dañ daan toog ba ci yàgg sax naa Talla fàttali loolu naa ma sëñ sëñ ña ko ba de ista bu bu amul kër sëñ Tuubaa fii ci dëkk bi istab na ko jig xam naa loolu taal yàgg na ma ko wax xam naa fàtte na loolu maanaam ndax pëstéef goo xam ni maanaam saa su ne maanaam nu mu ko toll ak noo xam ni maanaam bëggal na ko sëñ bi fii kër sëñ Touba ànd ko mbokku taali bi yëpp nag maanaam bu ñu limee dañuy juum ñëpp ku nekk Argentine rek ndax lii tey jii jëf ji du jëf joo xam ni maam sëñ Yankoba moo ko jëf wala taala Sall moo ko jëf wala sëñ Bamba moo ko jëf ñëpp ko képp koo xam ne yaa ngi ci dëkk bi maanaam sa dem na ci. waa kon ñu ngi sant yàlla borom bi subhaanahu wa taala di ko ñaan maanaam bennoo gi nga xam ni maam Serigne Sidou Muxtaar digal nañ ko te murid moom ñuy wax ndigal ci murid la uh, njëkke fa la ci li ma xamoon boog man ginnaaw bi ma gënee àdduna waaw maanaam ndigal li nga xam ne digal na ko ñu def muy bennoo ñu ngi koy ñu ngi koy lancé tamit di woo mbokku taalibe yëpp maanaam ci liggéey bi nga xam ne sumal nañ ko Sëñ Tuubaa fii ngeen gis muy maanaam muy pàkk yu yaatu ba dee te lii nag maanaam li ko jënd moo gën a yomb li ko defar waaw bis ñi ki tey daal man jàpp naa ni lenn lu ñuy wooteel sëriñ Touba fii ci dëkk bi te tabax tabaxuñu euh, këram gi ba pare maanaam jàpp naa ni mën nañ koo tege boor ba pare waaw wax dëgg yàlla kenn ku ne tamit bu ñu nii kenn ku ne ci sa ci sa ci sa euh, gëm-gëm ngay doxee waaye jàpp naa ne fi mu ne nii waruñoo woote benn saal dem fa maanaam daan dañuy def dara bis ni ko tey te tabaxuñu kër Sëñ Tuubaa ba pare te tey jii kenn ku ne bu xoolee ñun li ñuy fere ci saal yi par année rek xaju ci laa ko tàmbalee ndax am naa daayira ma bokk taali saal mi am na daayira ma bokk sëñ ñanko bi am na daayira ma bokk lépp loo ne ñu ngi def si dëkk bi man sama sama wax ba bopp laay laay wax ne fi mu dañ ko war a maanaam takk tax teganee ba tabaxal kër Sëñ Tuubaa ba pare jàpp naa ne bu loolu paree ci la lépp li gën a yombee